rahmatullah taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen a ñu seetaan seen biir émission Kouthia Show ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag a mag a mag mbokk yi programme bi tey dem ci ki xam ne mooy El Hadj Malick Gueye lan méngee seede yoo xam ne nag fas yéene ko indil ci diggante moom ak président de la république Macky Sall moo tax tey war na ñëw ci El Hadj Malick Gueye lan méngee ci jógee mbokk yi dinañ dem ci ñaari avocat yi nga xam ne dañu bokk ci collectif des avocats de Aïda Ndiong Aïda Ndiong nag li mu yor ci avocat wax dëgg yàlla nag macha allah sakkan na loolu waay dinañ ci jël ñaar ñoo xam ne dañu di sempi maître Mbaye Jack Ndiaye ak ki nga xam ne maître Clédor Ciré Ly moom ci boppam dina teew ci plateau bi indi ñu ay gindi lan mooy bien ak lan moo dul bien ak lu état war a laal ak lu état warul laal mbokk yi tey loolu mooy doon suñu programme si émission Kouthia Show bu leen ko fàttee mbir mi nar a jaar fu leer waaye nag ñi nga xam ne mooy comité chrétien yi ñoom nee nañu dañu bëgg état dugal seen loxo ci li nga xam ne moom mooy ah, dem rom bi ndax billet bi cher na cher boo xam ne wax dëgg yàlla boo ko xoolee sax ëpp na dayoo te état war na dugal loxom abbé Jean dina ñëw leeral ci àddina ak ki nga xam ne mooy abbé Diegane ndol ndol mbokk yi ñu nekk ci réalisation bi xam ngeen kan la papa Samba Thiam ak tonton Mag papa Samba Thiam waaw ak tonton Mag papa Samba Thiam ak tonton Mag eh papa Samba Thiam ak tonton Mag eh papa Samba Thiam ak tonton Mag ki nekk ci son bi ba ngeen mën a dégg mbir bi muy toq seen nopp mooy ingénieur de son bi eh toq toq toq ingénieur son. chargé de production maanaam li nga xam ne dañ ko soxla ci plateau bi lu mu munti doon te ñu yee diwoo ko moom ci boppam moo ñu ko indi ñu naan ko papa duudu pap duudu papa duudu eh papa duudu ñu jàkkaarloo caméraman bi nga xam ne moo jaaxal gars yi ñaari caméra la yor te benn jëmu moo koy filmé large ak serré kooku nu mu tudd Yao Gervais Yao yaawoo GRB am nañu mbégte contentement fi ñu taxaw bu leeree ba leer nañ xam nga ne jamoo fi jaar nay leer jaabagul lëndëm nay leer nay leer jaabagul lëndëm nay leer nay leer nay leer nay leer jaabagul lëndëm nay leer nay leer am na ñu mbégte ak contentement liggéey bi ñuy def nag coordination rédaction la buñ ko tënkee ki nga xam ne mooy dox suñu diggante ak régie ñu naan ko Fatima Evans eh Fatima Evans eh Fatima mbokk yi dañuy kontaan ndax ambiance bi ngeen di muy tëb di rëb di tëb di dal kenn moo koy def waaye ñaar ñoo koy def waaye boo xoole benn jëmm bi kii day mbalax ki di mat mooy Abdou Fall go Abdou Fall ak go Abdou Fall ak go Mbeng Mbeng Horatio eh Horatio ora Horatio eh Horatio bi ay jigéen a ko yor caba ñanga ak jaara way woy kaay leen la ilaha illallah hey kaay leen am nañu mbégte ak contentement jàkkaarloo ñi nga xam ne plateau bi bu yanjee ba yanj moo fay jaar fo bay rek ko ñu an ko tonton Pierre hey tonton Pierre sécurité Kouthia Show ak li nga xam ne nag mooy sécurité équipe bu Kouthia Show ki ko yor mooy Kaara Kaara Kaara Kaara Kaara sécurité centrale ñu ci seet di ko ziar suñu père ñoo ko père Assane père Assane Ndom père Assane père Assane Ndom jàkkaarloog jàmbaaru Futurs Médias yi nga xam na ñoom ñoo nekk ci manœuvre yi ñoom ñooy defar plateau yi ñoom les hommes du 24 mooy groupe ñoom njool ñoom yox ñoom demba gars yeeg ñi xam ne ñooy liggéey ñooy yëngu ñooy dabax ñooy defar ñooy branché ñooy nekk caméraman yeeg saay sax ñoom ñooy nekk planteurs yi eh équipe bu décor eh équipe bu décor eh équipe bu décor mbay dikkal dikkal mbay kaay mbay kaay mbay ñawal ñawal mbay kaay mbay kaay mbay dikkal dikkal ey mbay kaay mbay ñawal ñawal mbay mbay kaay mbay dikkal dikkal dikkal dikkal dikkal dikkal dikkal dikkal mbay kaay waay mbay kaay mbay ñawal ñawal mbay kaay mbay ñawal ñawal mbay kaay mbay dikkal dikkal ey mbay kaay mbay jëkkal jëkkal strong check moom nga indaale strong check moom la indaale strong check vani la indaale strong check vani la indaale eh, pressa yaa la indaale قطب قطب عارف من مقام قطب الوجود قطب عارف من مقام ذاك أبو العباس الكبريت الأحمر المكتوم والبرسخ المختوم والهمام الأفخم والعيلم العلم أبو الفيض السمداني أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه ak uh, ànd ak strong shake bi nga xam ne vanille la ak bi nga xam ne mooy mango wax naa wax dëgg yàlla nag uh, ki nga xam ne mooy borom nee na kontaan na trop ndax gis na daal visibilité bi daal am na ci ay résultats ci diir bu gàtt kon nag mbokk yi euh, bi nga xam ne nag ci tàngaay bi daf ciy baax ndax moom bu tàngee neex bu seddee neex randa la tudd ñuy gërëm bu baax ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa groupe Prestea nga xam ci at boo xam ne ñu ko doon jaay diggante Pout ba Casamance jënd nañ ko daal di koy transformé mixé ko yeneen produit yoo xam ne fii la juddoo ci réew moo taxit ñoom dañoo ànd ak ñun ci sponsor yi gërëm nañ leen waaye di sant kilifa diine yi nga xam ne nekk ci réew yëpp euh, euh, boo Touba sëñ Sidi Makhtar Mbacké ñu ngi koy ziar di ko ñaanal fan bu gudd wér-gu-yaram ak suñu ñu ngi wax dëgg yàlla di ñaanal fan bu gudd ak wér ñu koy ñaanal fan bu gudd foofu nekk ca Fuuta ak mboolem taalibe taalibeem alaaji Cerno Madani Tall ziar nañ ko ak Cerno euh, alaaji Cerno Bokar Alpha ba ca war a fondé ak Serigne Habib Gueye Mouhadamou Serigne Mansour Sy ñu ngi koy ziar alaaji Cerno Nourou Tall Sacré di am mbégte contentement ci alaaji bu Thielaw di moom mooy Ngaay Mexe waaye nag fii ci la grande commerçante ñu ngi koy ziar ak mbooleem koo xam ne yaa ngi foofu ca Ngaay Mexe di bég bu baax ci alaaji Bassirou Bara Mbacké gërëm na taalibe yi nga xam ne wax dëgg yàlla dugal nañ seen loxo ci ngana li nga xam ne moom lañ doon amal suñu papa di koo xam ne nag ñëwoon nga ci koy delloo ziar di am mbégte contentement Go Fall ak Fabou Gueye ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram la ñu koy ñaanal tamit moom mu yàgg fi lool lool ak sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makari ñu ngi koy ziar foofu ca Touba sëñ Mbaye Sy Mansour nag suñu soppee bopp la ma ca Tiwaawan yal yàlla guddal fanam may ko fan bu gudd ak ak wëllëram imam Tamsir Sakho ca Gueule Tapée doom ji Ousmane Sakho ziar nañ ko suñu papa bopp di Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz Serigne Babacar Abdoul ca daara di ñaanal ñoom ñëpp yàlla may leen jàmm yàggal leen fi lool rawatina sama papa bopp di Alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy di murit 100 sopp sëñ Fallou 100 pour cent ziar nañ ko ak Cheikh Tidiane Diaw nekk ca Yaraax di am mbégte contentement kii nag moom naa ko bàyyi la sama bopp nag mboolem am mbégte bu yaatu xam ne moo jiite moo jiite leen di ñaanal yoonu bi nga xam ne moom lañ jël dem ci rom bi ñu dem ma ziyaaral euh, samay xarit yu bëri nekk ca Ndar ne nañ kontaan nañ ci maître Fatima Fall ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak monseigneur euh, Euh, monseigneur bi nga xam ne mooy Luis Mariano Montenegro ma nga ca Italie dafa dellu sama xarit la woon ma barke démb mu ngi rafet lu bu baax liggéey bi nga xam ne ñu ko ci dialogue islamo-chrétien moom daal kontaan na ci kii nag yaay Adja Kiné Sy bu Serigne Cheikh Ahmed leen yëpp nag di gërëm bu baax Serigne nga xam ne mooy porte euh, porte parole euh, tarixa Tidiane ci yoon boobu ñu ngi koy gërëm di ko ziar bu baax kon mbokk yi ñuy dem nag moom mooy ànd ak ki nga xam ne mooy le duo du siècle le duo des deux jumeaux moom mooy ki nga xam ne mooy tonton mag Pape Samba Thiam waaye bu leen ingénieur ba ma ca wet ba di toog caméraman yaaw géwa mbokk ñu dem seeti chrétiens yi nga xam ne nee nañu yoon bi wax dëgg yàlla état war na ci dugal loo xam subventionné leen parce que 2 millions yi teg na lu bëri te nga xam ne ma nga dëkk ca ndondol di abbé Jegaan ndol ndol lan lay indi ci ay xibaar yu wane na que ñoom bëgg nañ daal ku leen wàññil pour bu ñu demee a ñaanal Sénégal mu jëm kanam jërëjëf jërëjëf joko njël kay joko njël jërëjëf joko njël jërëjëf ndol ndol ak jërëjëf paroisse yi nekk ci dëkk bi yëpp ñëpp ñu ngi kontaan monseigneur Benjamin Ndiaye ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér ku yaram mu yàgg fi lool te jiite ñu yàlla bàyyi ko fi ci ci barke Yesu Christa waaye nag Macky Sall dafa jot ñu wax ak moom nag <laughs> xam nga ñun sax duñu politique waaye dañuy wax rek ke mu xoolaat bu baax tuuti rek ci li nga xam ne mooy dem ziyaare bu mag bi nga xam ne mooy pèlerinage ci ñun ndax bu ñu jógee fii dañuy dem Jérusalem jógee Jérusalem dem Rome ak bërëb yoo xam ne bu ñu fa demee dinañu taxaw foofu ñaan fa ñaanal suñu bopp ba pare ndax ñun ñi nga xam ne ñooy ñaan bu ñu ñaanalee suñu bopp yàlla may ñu ñu fekke ko ak tal ko ci barke Yesu Christa kon dinañ mun a ñaanal keneen yéen ngi may dégg su ko defee nag wax dëgg yàlla bu ñu ñaanalee suñu bopp ba pare ñaanal borom réew mi ndax borom réew mi ci boppam réew bu amul borom kay kon doo mun gën ndax lépp moo koy teg ci yoon. waaye nag dañu gis ne a ah, wax dëgg yàlla xëy na kat julli di sax ñoo ëpp lool ñi nga xam ne ñooy chrétien yi waaye nag dafa mel ne ñoo gën a yombale <laughs> ñoom ñoo gën a yombale ndax ñun suñu dem bii nga xam ne mooy dem fii ci ci ci ci ci Jérusalem ak ci Rome ah métti na tuuti de te dañu war a ñax état nag dugal ci loxoom tuuti rek tuuti rek ndax ñun duñu ñaan tuuti rek mu wàññi li nga xam ne mooy dépense yi daal di koy subventionné su ko defee nag wax dëgg yàlla gone chrétien yu ndaw yi dinañ mun a di dem fi nga xam ne mooy Rome su ko defee loolu a ah, dina tax tamit entreprise yi nga xam ne dañuy def bureau bu société bu nekk yóbbu ñaar ba ñetti jullit ñu koy tolole dañ koy tolole ndax boo yóbbee juróomi jullit yóbbu ñaari chrétien loolu bokkul ci tolole dañ koy tolole rek bu amee fukki jullit yu dem am fukki chrétien yu dem waaw loolu dafay baax ndax loolu day tax société bi daal di stable waaye boo yóbbee fukki jullit yóbbu benn chrétien loolu dafay mel na leneen la loolu nag doxalin la boo xam ne société yi nañ koy ñaan waaye nag it dëkk bii ñu nekk muy senegal ah boo boo ñaanalee sa bopp ba pare ñaanal sa njaboot da ngay ñaanal borom réew mi ndax borom réew mi kay moo la jox autorisation pour nga génne mën a dem moo lay sam tamit bu la kat ñoom ñoo lay lijjanti kon da koy ñaanal ak ku munti ne nag ki fi ne ak ki fi ñëwaat ak ñi fi newoon ñëpp da nga leen di ñaanal. ndax ñun féetewuñu ci benn parti politique dañuy jàmm yàlla rek moo ñu saf donc kon nag bu fekkee Macky Sall wàññi na loxoom tuuti rek ci pèlerinage bi dañu koy ñaanal mu tolanti <laughs> dañu koy ñaanal kay mu tolanti ndax boo bëggee tolanti da ngay fexe ñi nga xam ne ñoo lay ñaanal ci li nga xam ne moom nga bëgg nga jàppale leen tuuti ñoom bu ñu ñaanalee pour nga tolanti kon Macky soo bëggee tolanti da ngay fexe wàññi yoon bi nga tolanti. soo hey so buggee tollanti wara tollanti bugga tollanti bugga tollanti di tollanti da ngay wàññi wàññi ñu ñaanal la <laughs> billaay tollanti hey kay waay boo buggee tollanti tollanti waa tollanti da ngay wàññi ñu ñaanal la Taki boobu ko lanti to lanti to lanti waat ñu ñaanal la nga to lanti ofa andika matinde kana ndika so ana andika fa bini ko kona ko to lanti ori ka fa ndik na rok neke sa hanu kondo anya ja kondigre maki fa nano sikim tum ta tax na tax mang ne fang na tolanti ko na faxana maki tolanti i waaw ke e maki tolanti so buge tolanti da ngay wàññi ñu ñaanal la nga tolanti faxa ndik rek o ɓe ndik rek ko faxa ndik na dafa tik na kon faana tik te maki tolanti so taasu ey bu leen ko taasu da ma yëngal ey bu leen ko taasu da ma yëngal koral leen ko koral leen ko bu leen ko taasu da ma yëngal ii waay ii waay e eh, bu leen ko taasu bu leen ko taasu da ngeen koy koral ko koralee dafay neex ba neex xanaa neex waay i way sama waay maki wàññil ey eh, maki wàññil maki wàññil maki wàññil ku leen ko tàccu ku leen ko tàccu koral leen ko bu leen ko tàccu leen ko bu ma yëngal waay sama euh, xaritu papa la woon ñoom ñaar ñoo ànd di dóor ay tu ñu ngi nuyu tamit bu baax alaaji Lanjoor Gueye ak Mamadou Niang Baye Aliou Ndiaye Tawir Si ak Mamadou Ali Birane Niang ñoom ñëpp ñoom maam Cerno euh, Maam Faama Gay ñoom waa ñànk iri yëpp gërëm nañu leen waaye Baye Tamsir Ndiaye góor gu la nekk ca Jorgo euh, Chérif ca Rufisque di ñu ko yàlla baaxal di ñu tamit euh, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo quartier Daaru Salaam ca Thilogne ñu ngi koy nuyu waaye nuyu tamit waa gare maritime bu port autonome de Dakar ak Kosama doon fubal 3-3 la woon nag ñi ngi yi ñoom Aïssatou Dramé Aïssatou Fall ñoom Mariétou Ngom Ndiaga Kane ak ñoom Jo Alassane Mbaye ak ñoom Kébé waaye nag ñuy nuyu buteur bi nga xam ne nag moom mooy buteuru gare maritime ñoom Saliou nañ leen waa ñee nga xam ne dañ leen a euh, dóor nag euh, du ma leen nuyu ndax ñooñu euh, faruñu ci man Serigne Ababacar Serigne Babacar Aziz Sy xaritu Serigne Mbaye Sy Mansour nañ ko Serigne Gora Seye mouvement les serviteurs de l'islam nuyu nuyu bu baax njaxat Ndiaye nekk ca Thiaroye sur Mer Ouest Foire tamit borom ndeel distribution Ndiaye émergence nuyu nañ ko Ibou Faye nag nekk ca Kédougou Thiaroye sur Mer Orix madame Faye Fat Ndiaye Faye ak Fat Ndiaye Guèye ak waa mbootaay nopp sa jëkkër yëpp ñoom ne ne danaa jëlee seen dédicace ndax ñoom dañoo sopp El Hadj Abou Bilal mbokk yi nag dañuy dem seeti El Hadj Malick moom moo woote conférence conférence bi nag woote na ko pendant un mois ñu publicité ko ci rajo yi wax ko ci télé yi ñu def ko porte à porte réew mi journaliste yëpp <laughs> ñëw nañu nañ leen dem déglu ci ki nga xam ne mooy El Hadj Malick Gueye lan menge lan la bëgg wax ak ban déclaration lay def moom mi nga xam ne mooy borom lan menge El Hadj Malick Gueye lan menge tana troupe waay waay waay waay waay euh, wax dëgg yàlla yéen daal man daal man daal man daal aw ma seen fay man daal wax dëgg yàlla euh, gis naa ñoo xam ne euh, bëgg nañ alaaj ma liggéey ba mu sori lool waaye yéen daal kenn raw leen waaw waaw waaw waaw man maa woote man maa woote woote boo xam ne nag wax dëgg yàlla woote bu am solo la parce que bu nekkee ci réew mi président Macky Sall bëgg la te yàlla tax Euh, jël la ne wax dëgg yàlla da nga bëgg nag sama côté sama côté te li lu ma soxla mobilisation ak liggéeyal Sénégal wax dëgg yàlla euh, boo demee ba ci ba ci kanam réew mi am lu mu tëddee da ngay woote conférence de presse pour xamal nit ñi euh, sa diggante président Macky Sall ak li président Macky Sall di liggéey moo tax journaliste yi nga xam ne ñoo toog masalla wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi toog pour pour déglu ma may xaar seen laaj jëm ci li nga xam ni mooy tax ma woo leen. Euh, maa ngi leen di sant euh, yaa ngi ma bi télévision bi yaa ngi jël en direct. waaw ah, waaw naa la waaw waaw man la Thiaba Ndoye Libougou FM. ah Libougou FM wax uh-huh. ma bëggoon laaj man benn question kese la. waaw mooy maanaam lan nga yaakaar ne fi ne nii bu ñu ko euh, defoon tey ci ci réew mi dala tax maanaam réew mi dox ba Sénégal njaay gi xam ne sa réew maa ngi dox. wax dëgg yàlla dégg naa sa laaj. oui président Macky Sall dafa baax euh, Marème baax yeeyu Marème baax premier ministre euh, baax gouvernement baax Moustapha Niasse baax député yi nga xam ne ñoo fay nekk APR ñoom ñëpp baax Macky la dafa baax wax dëgg yàlla Macky da baax dégg naa laaj bi tontu naa la Macky a baax. maa Malick nuyu naa la. waaw man ngi lay fay. man la jaar FM kawoon. oui man dama lay laaj nan lañ mën a def ba saafara inondation bi. Euh, bi mu jëlee ci yàlla. julli ci yonent bi di sant sama sëriñ sama wasila ki nga xam ne mooy sama yaakaar tey ak fi ma jëm muy président Macky Sall eh, Macky Sall dafa baax marim baax yaay marim baax premier ministre baax gouvernement baax président assemblée nationale baax ak ñi nga xam ne ñu nekk APR ñoom ñëpp baax loolu laa mën a tontu Macky da baax. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. man la ñanga oui. Euh, FM Kaolack. ah sama dëkk Saloum. <laughs> waaw mais euh, question yi ñu la laaj ba tey tontu ci. waaw man nag dama lay laaj ba xam CREI bi ndax dafay continuer oui ou non. nga ne. CREI. ah CREI. waaw ndax dafay continuer euh, soxna si man am loo xam ne du ma ci bu ma julee ci bu ma yàlla sant yonent bi julli sama sëriñ di ñaanal sama sëriñ président Macky Sall sama la yàlla gudd fan te ak soxnaam ak ñëpp Macky dafa baax maram baax yaay maram baax premier ministre baax. président assemblée nationale baax waa APR baax Macky mu baax. la ci mën tontu salaamaaleykum euh, maaleykum salaam monsieur El Hadj Malick Guèye waaw man la Momadou Thienti waaw Féexal FM waaw waaw waaw ah Thienti Thienti waaw nekk fële ci Kédougou ah waaw waaw wax dëgg la voilà euh, ma ah. question elle la suivante waaw parce que maa ngi seetlu sànq ba léegi on t'a posé plusieurs questions waaw mais dafa naa tontu woo ci benn waaw voilà man nag li ma lay laaj waaw kenn mooy El Hadj Malick Guèye kenn mu dugal est-ce que remaniement ministériel waaw possible na Hmm? fii ak deux mille dix hmm? wala possible. Hmm? hypothèse yi nga xam ne moo dégagé wu. loolu lañ bëggoon a xam ba xam ndax mun na nekk wala munu nekk wala bu fekkee nekk na est-ce que am nga yaakaar ne di nga dugg ci gouvernement Macky Sall comme ni nga ko bëggee boobu léegi. Euh, maa ngi sant jël ci yonent bi di ñaan sa sëriñ Macky Sall sama wusila yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram Macky daa baax maram baax yaay maram baax président assemblée nationale baax ñëpp baax ñaan ànd ak baax loolu la ci mën a ci question yow it boobu ba tey tontu wala tontul. ma tontu. ah oui waaw man man damay tontu. waaw dëgg naa waaw man man kenn mu dugal. déedéet kenn déedéet déedéet waaw man dama ne man maa maa leen woo maa leen woo damay damay may dama leen woo dëgg day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg day dëgg may déglu dëgg may déglu wax dëgg yàlla man maa leen woo conférence de presse pour ngeen xam ne Macky Sall dafa baax li ngeen may laaj yëpp kenn mu dugal kenn mu dugal lii parce que man man man li ma xam rek laa wax. Eh, dama ne ino eh, dama ne ay crédit yi inondation yooyu yëpp dugg dugg xam naa bëgg xam su ma seetee yàlla eh, yonent bi jur sama sëriñ Macky Sall Macky dafa baax yaayam baax yaay maram baax président national baax premier ministre baax waa APR baax loolu am waaw waaw waaw waaw dëgg dëgg day waaw oui bu leen fëcc la way waaw oui mbir mi moo baax baax oui baax oui baax moo baax maaw baax waaw waaw dig nii baax oui yaay waay nga ni waaw dig nii Iwoi, wow, woi, Iwoi, woi, woi, woi, Iwoi, woi, woi, woi, wow, Iwoi, wow, wow, woi, woi, woi, woi, Iwoi, woi, Iwoi. premier ministre baax député yi baax marem baax yaayu marem baax APR baax lan menge baax gouverneur baax premier ministre baax ministre baax Macky moo baax diw yooyu diw yooyu makee baax makee baax waaw diw yooyu way wuy yooyu wuy wuy yooyu wuy wuy makee baax wuy makee baax wuy makee baax wuy marem baax yaayu marem baax waa APR baax premier ministre baax assemblée nationale baax député yi baax garde corps yi baax waa palais bi baax wuy ma kay baax wuy yooy yooy wuy yooy wuy yooy waaw wuy yooy wuy yooy wuy yooy wuy yooy wuy yooy wuy yooy wuy yooy

premier ministre Ba Macky émergence i wëj ma yaa baax Macky ma yaa baax alhamdulilah bay Mamour bu mag di gërëm waa Strong Check euh, ak Spaghetti Randa presse ya nekk ci wet gi ñoom ñëpp ñu ànd ak ñun waaye tamit euh, di bégal bu baax euh, Grand Bay Dieye nekk SFG Pape Thiam ñoom Pape Moussa tourneur ñu koy nuyu Pape musa tourneur ak Ndiaga Thiandoum ñuy gërëm bu baax job Dakar Diop Dakar Couture ñoom As Diop Pikine Maysa Gueye sant yàlla boutique Colobane ak Noa Tailleur depuis Colobane marché Gambie ñu ngi leen ñoom Mama Janko depuis Suisse doomu ndeyu Adama Jacke noir euh, Adama Jacke noir deben ak euh, borom cheveux naturels depuis Italie de la part de Ñanga ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit Mounas euh, Fadiga depuis Thiès actuellement à Dakar. di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne mooy Mbay Tama borom Pikine euh, tali bu mag Alassane Niang Chéri Nogay Abdourahmane ñu ngi koy nuyu ak ñoom Jaaji Fall euh, dem dikk ñoom Modou Dame Chéri Bouri Fall Awa Mbeng Chéri Omar euh, Bass de la part de Go Fall du ñuy tamit Ngaaka Blindé l'artiste international ami de Horatio Bounama Fall ak ñoom ay AIC Pikine Paplam photographe du troisième millénaire ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit Alpha Fall Paris Idi Fall ak Cité Lamine ñu nuyu tamit suñu xarit bu ñu naan Euh, Mamadou Diaité ak ramu Sakho ca Bakaaw Gambi de la part de Oumy Ndiaye London ak Gaz Ndiaye waaye di am mbégte contentement bu mag ci képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan rawatina Njaxat Njaay ñu ngi koy gërëm di ko sant di am mbégte contentement suñu papa professeur Alpha Dat am nañu bu yaatu ci euh, nekk sa Thiaroye euh, sur Mer Orix ak soxnam ñoom ñëpp nag quartier boobu ñu ngi di gërëm di leen sant di gërëmaat bu baax Pape Diop e doomu ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte contentement bu mag di gërëm tamit bu baax professeur Alpha Dat di am mbégte bu sori lool ci famille Baro Sicap Amitié 1 ñoom ay Aïda Sey ay sa famille Sicap Amitié ñoom un ñëpp ñu leen di gërëm di leen sant mbokk yi nag ni ñu def moom mooy dem ci ñaari avocat yi nga xam ne ñooy avocat wu maître euh, ñooy avocat wu Aïda Ndiongue di maître Amadou euh, Clédor euh, li ak ki nga xam ne moom mooy Mbaye Jacques Ndiaye waaye tamit mbokk yi ñu xamal leen nag ci répertoire Kouthia Show dinañ ci génn ki nga xam ne moom mooy Cissolo ndax Cissolo démb ci guddi bi émission bi jeexee def maa woo téléphone di métti lu baax li nga xam ne moom nañ ko jàllale démb ci émission Kouthia Show moom nag euh, ni mu ko gisee ak ñun ni ñu ko defee moom nee na daal gisee wu ko noonu euh, moo tax ñu nag euh, di gërëm bu baax maître El Hadj Diouf ndax moom tamit euh, c'est un démocrate gis nañu Kouthia Show g maître El Hadj Diouf ñëw dugg si fi sargal ba ñëwoon na fa tamit grand bu bu rafet boobu ngeen gis may sol El Hadj Diouf moo ko may te amul dara loo xam ne mos nañu yëkkati téléphone am wax ñu ko jëm si suñu liggéey moo tax nag ñun fii ci équipe Kouthia Show bés tey Cisselo génn nañ ko suñu répertoire dootu ci bokkati ndax ni mu gisee démb niñ ko imité moom daf ko ñaawlu ci euh, li nga xam ne mooy def euh, la bëgg te ay moom ñun dañ ci dara jàmm lañ bëgg comme que nag euh, lañ wax moom dafa dëppoo ak moom li mu wax li mu wax te pourtant li mu wax nag wax dëgg yàlla ñun moom rek lañ jël def ci tuuti xorom te maître El Hadj Diouf ba tey yëkkatiwul kàddum sax di ñu jéem a wax ne li ngeen wax ak la te dafa am kon moom ni mu amee njaboot te daf jàngatee li nga xam ne moom la ko jàngee maître El Hadj Diouf chef de parti la te ñun parti dañ ko xam rek koo xam ne xëy na responsable politique la bu chef de parti damay bay nangu ñu koy toppandoo te yëkkatul kàddum di ñaanal maître El Hadj Diouf fan bu gudd ak wér gu yaram ak njabootam ak euh, compréhensif bi mu am ak euh, degré intellectuel bi mu am ba comprendre li ñu def ñu ngi ko ciy ñaanal fan bu gudd comme que nag moom euh, Cissé Lo li ñu ko imité démb daal wax dëgg yàlla daf ko rafetu loolu ba yëkkati téléphone am wax ma ko il faut mu wax nit ñi nag nag lu tax dootuñu defati Cissé pour ëllëg buñ ko gisatul ci actualité bi ci répertoire wu rédaction Kouthia Show ñu bañ ko jàppee dara te xam ne nag génn nañ ko ci suñu répertoire jàpp ci ñi nga xam ne nag xam nañu éthique ak logi léegi nag ki ñuy seeti mooy maître Mbaye Jacques euh, Ndiaye ak ki nga xam ne nag moom mooy euh, euh, Amadou Clédor lii bi nga xam ne ñooy ay Aïda Diong suba dinañ demaat kër Aïda Diong parce bien yi jeexagul nan lay xewee suba di ngeen ko xam mais ñaari avocats yi nañu introduire ñu daal day ñëw wax ñu lan mooy bien ak lan mooy rôlu justice ci li nga xam ne mooy la cas de Aïda Diong bi nga xam ne neexul ba neexul mooy actualité mooy buzz lépp ci éthique ak déontologie ci maanaam wax ak tontu mu leer état tamit dina ñëw defender moom tamit boppam loolu dina ñëw ci semaine bi rek bu état expliqué lu tax mu def loolu dinañ ci ñëw kon mbokk ñu seeti Mbaye Jacques Ndiaye ak ci les défenseurs de Aïda Diong ñaar la nag ci collectif des avocats am na yeneen avocats yoo xam ne ñu ngi ci collectif bi mais ñu jël ci ñaar yi mbokk ñu seeti fi nga xam ne nag mooy ci militant yi nga xam ne ñoo ñëwoon pour ñaari avocats yi expliqué leen li Aïda Diong def ak li ko def ay ca mbokk yi. avocat mbaa greffier président mbaa magistrat. jërëjëf jërëjëf euh, ñu les avocats yaakaar naa ne ku ñu seenu ci yëngal mbagg doo ñu ci gis <laughs> xëy na bu ñu nekkee suñu njaboot man maa ngi présenté wu je m'appelle maître Mbaye Jacques Ndiaye bokk ci collectif des avocats de Aïda Diongue. Euh, man je me présente je m'appelle euh, maître Séré Clédor Ly de Aïda Diongue. ñu ngi ñëw pour leeral askan wi bien mooy li nga xam ne yaa ko mooy li nga xam ne nit ki mooy alalam. boo jëndee sa mango sax sa mango la yaa ko moom ndax sa alal nga ko jëndee euh, te dafa am ay articles yuy wax ne bien mooy li nga moom ak bien privé bien public état mooy moom ay bien public lu mel ne Sénélec état moo ko moom SONES état ko moom CARI état ko moom yenn structure yu bëri état daf ko moom mooy ay bien immobilier am na kër yoo xam ne état moo ko moom am na bërëb société yoo xam ne état moo ko am na alal joo xam ne état moo ko moom donc yooyu il faut nit ñi ràññee ko ak li nga xam ne nit ki moo moom moo ko moomal boppam damay bàyyi tuuti ak euh, son euh, sama collaborateur mu wax ñu ci euh, li nga xam ne moom mooy bien privé ak bien public ñu détaillé ci Kaar Aïda Ndiongue merci maître je pense que la loi est, est, est formelle tellement claire et stipule que, que l'article 4444 du code pénal 1879 alinéa 12 12 44 12 mi ngi wax ne nit ki bu fekkee dafa am bien commun. Mhm. ak bien personnel. Mhm. ak bien interpersonnel. Mhm. bien personnel mooy li nga moomal sa bopp yow yi nga xam ne yow say bien la yaa ko moom yaa ko liggéey. effectivement téyel ko sa bopp. bien commun mooy li nga xam ne moom bi bii sa intérieur bien ci la nekk muy sa ndono. ndax xam nga ne am na loo moom mais am na loo xam ne sa ndono ñoo ko moom ndax amoo droit dem ba mu leen da ngay damay taal sama alal wala damay jël sama alal mayee ko ci àll bi te ñu ko war a doon ne fi mais Aïda Diong dañ ko saisir ba saisir ay biens interpersonnels am. waaw loolu aussi nag ñun nga xam ne ñooy collectif des avocats dañ koy naqarlu. et eh, doguma la Aïda Diong bien mu ngi ko amee ci diggante daan doolem ak liggéey entreprise la taxawloon ci jamonoy parti socialiste yàgg na di fexe ba am ay marché yoo xam ne moo ko amal boppam te marché yooyu mu ko am ci diggante mbóot ak euh, yoo. ak euh, li nga xam ne moom mooy ay entretien toilette les produits phytosanitaires waaw mooy maanaam rey mbóot ak rey yoo ak rey gunóor ak tamit li jëm ci douche toilette sangukaay li nga xam ne moo jëm ci sanitaire kon euh, teraanga doomu aadama mun naa jóge fu nekk ndekete rey mbóot ak rey jinax ak rey kaña ak yooyu mun na lay indi teranga te ay ay ñoo xam ne ci teranga boobu ngay mën a amee sa alal kon ay da li mu am daf ko ñàkk daf ko jëriñoo d'ailleurs sax bu fekkee ne alalu mbóot la ak jinax ak kaña te nga xam ne ci la fajee ba mu yàlla dimbal ko mu am ay marché jëmale ko ci li nga xam ne nag moom li mu moom ak li nga xam ne mooy entretien ay toilettes li nga xam ne moom code pénal 16 du loi 45 prévoit un chef d'entreprise qui par sa propre capitale mmh. SAR la société des anonyme à relation limitée bokk ak société bi nga xam ne nag commune am ay actions

des bases contexte 44 bi nga xam mooy loi 12 alinéa 16 dem ci 4 444 ci loi modifiée par l'article 45 monsieur Ly vous pouvez euh, actionner sur la base économique centrale centrale des bases de qualifiées euh, qualifiable euh, dans dans l'alinéa 1444 du en parlant de l'alinéa des codes interpersonnels parce que quand parle de code interpersonnel on parle de sa famille de ses petits-enfants de ses enfants tante, nièce, neveu, et toute sa famille nucléaire. Et quand on parle d'une famille nucléaire, on parle d'une famille qui est tellement grande. Parce qu'on Afrique. Pour être, pour l'explication soit plus claire, je ne serai pas là à vous citer les, les et les paragraphes des articles. Mais Aïda Diong, sachez une fois encore de plus, que Aïda Diong a été menacé a été torturé a été dépouillé de tous ses biens et de ses eh, ci gën a mu ci gën a mooy keccax bi nga xam ay na jong da ko ci këram ak bëggaj wala kur roof yi ci boppam loolu bien personnel la waaye bien domici bien domestique maanaam kur roof voilà ak li nga xam ne mooy bëggaj ak suul loolu état mënu ko fi bàyyi ndax bu ko jëlee ko yàqati lu ko confiscation psychologique ci mémoire ndaw si bi nga xam ne tere

kaf yi nga xam ne da ko monté ko buddi dindi ko carrément am na loo xam ne saggi-saggu nit la je dirais que tout simplement cette loi est une loi barbare c'est une loi qu'on doit de tout part c'est une loi qui ne va pas kuy jël saaku ngooñ doo fa bàyyi ki nga xam ne mooy lekk ngooñ bi jël nañ ay xaram jël ay dina xam jël ay jinax am fépp oui parce que am na jinax blanche yoo xam ne day lutter contre les jinax noirs yooyu bi ñu fa état da ko jël yóbbu ci ay jinax te jinax yooyu ay da jongu moomu ko c'est des jinax naturels yoo xam ne environnement bi ci boppam ci la moo ko jënd da ko xam ne moom mooy article moom mooy définir article 12 4444 mooy du code pénal di 1998 waaye loolu parce que kii li mu définir loolu c'est très important kon nous demandons à l'état du Sénégal mu war def mooy bu ñu àttee ba pare cour suprême day saytu àtte bi jëlaat àtte bi delluwaat ko juge juge dooloo àtte waaye cour suprême amul droit di jël di ate ate boo xam ne maanaam ndar kepp bi sobe bi ci moom la li mujjee wax mooy am déedéet daf ko war a delluwaat ci juge juge xoolaat soit cour suprême danaan dañ ko dañ ko jox dossier mois la war a mois la mu xool ne 4 mois yi ëpp nañ ko wàññi war nañ ko yokk loolu la ci mën waaye dootu na décision finale bi moom moo jël kon li nga xam ne mooy confiscation des réflexions sur les bases d' éducation article 12 et l'ENA 16 bi ñu en classe promotionnelle des droits civiques et droits personnels sur les biens revenus sur le lac social mooy indi 12 bi confirmer la confiscation

facture téléphone ma ñëw euh, ma lay xamal ne su ma ko bàyyi di continuer te damay fàttali li nga xam ne moom jëriñoo dama ne monsieur tu as oublié ñun avocat yi booba léegi fayeguñu parce que dañu bloqué compte am da bu ñu bloqué compte am du mun am xaalis boo xam ne moom la ñu faye ñun booba léegi ñu ngi plaider Aïda Diong te on a rien mooy wane que l'état non seulement dafa confisquer les biens yi nga xam ne ñi koy liggéeyal mooy jànqam ak garnièram ak chauffeur ak yëpp actuellement ay mbokkam ko fay te gor bu am na loo xam ne confiscation détruit et d'exploitation sur les bases nan la ay jong def bay dund ñoom ñoo ko xam parce que jël na li nga xam ne moom la amoon ci alal daal di koy confisquer xaalis dootul génn dootul génn kon fan lay def ba dund kon loolu mun na indi confiscation des esprits interne ak li nga xam ne moom mooy débauche mbokkam yi nga xam ne dañuy jógee fi nga xam ne mooy waalo ñëw war am paas dellu duñ ko mënati te ay du ñaan kenn pour jox leen paas li nga xam ne mooy ngorob ak kiyam dañ ko seddi kon confiscation de générosité moom nañu article 12 code pénal 16 loi 44 merci beaucoup article 44 1859 ñu ciy waxaat encore une fois de plus di leen ne Aïda Ndiongue li ñu ko def forfait la parce que tout simplement ñi nga xam ne danaan xëy di leen yat di leen sarax muy yelwaankat lu mu leen sarax parce que tout simplement bu génnee fukki dërëm pour yel saraxe ko agent secret bi day téye loxo bi jël fukki dërëm bi mu génnee amatul fu mu dugalee lu jógee ci moom dañ ay jong bu tabaskiwul war a mu koratéwul war a tam xaratul war a demul màgga demul màggal a demul gàmmu état nga xam ne moo tax nga war a jënd te a ñàkk jëriñu ko war a war warota ko a def boo ko tàmmal defal loolu dootul amati lu mu dimbalee doomu aadama yi mooy confiscation de la générosité vraiment maître vraiment maître yaakaar naa ne lii moom amatu leen luñ ciy teg parce que tout simplement ceeb dama ko ceeb bi teg ko fee jël note bindal la jox la ay rajongu lekkatul naanatul kaasu café bu ñu ko ko ko fee jaay ko ko ci keesu nguur bind ko naan amuñu ko ko coupé suñu facture courant bu ñu doxee maa ngi nii damaa dox sama tànk yi jeex tàkk maa lu ma fayee lu ma watoo dèjà sama karaw bokk la xam ne gëj naa

envers une action démocratique sur l'article 16 44 sur 4 kon article 16 44 26 na leer article 16 44 26 mu leer confiscation de biens article 16 44 sur 16 ah, sur 2 ah, a bene 44 sur 44 sur 2 mais article 2 sur 44 mais dafa war a leer article sur 2 44 ku la bàyyi 44 c'est ça mais article 2 bu Mais c'est quoi Mais c'est quoi ça Mais c'est ça Injustice Ça c'est quoi Injustice Ça c'est quoi Article 12, 44, ça c'est quoi Pour ça Mais ça c'est quoi Clédor C'est pas Dada Clédor Dada Ly Dada Clédor Dada Ly Dada loi 44 juridiction française cour suprême juridiction tribunal régional acquitté sursis bénéfice du doute renvoi appel appel sur renvoi monsieur le juge les cinq sages injuridiction juridiction article 4 loi 2 modifié par 4 le tribunal de transparence indépendance judiciaire indépendance avocat magistrat greffier sursis oui. article transparence monsieur les cinq sages cour suprême tribunal régional b article article loi 44 sous 44 sous 5 sous 46 7 moins 3 que sous 4 article 2 mais quoi